TV Il faut combattre contre cet état de fait qu'on on souffre d'un complexe de persécution. Il faut combattre cette idée que ben, on ne peut pas faire autrement, nous sommes noirs, on doit accepter. Il faut montrer que certaines places nous appartiennent et que ces places qui nous appartiennent, on doit se battre pour les avoir. Voilà. ñoko ko déggandoo moom dem si yalla sidi di Pape Diouf yàlla na suuf ci kam ci benn ci ay intervention mu doon ñaax africain yi rawati nañ nga xamni ñogi nek bitim rew baña am sentiment d' manam maanaam jàpp ni lepp lu bax rek nasaran si moko yeyo mu ne afrique yi nga xamni ñi ngi yëngu ci sport dem formé wu ci manam tagatu ngir normal yeen ndombal tanki muy benn discours boo xamante ni day wane caractère doomi aadama bi waaye itam jaar-jaaram parce que bokk na tey cay africains yi nga xamante ni ñoo dindi complexe yi suñu doomi réew yi doon am di jëmale ci nit ku weex mu wane ab exemple maanaam bokk ci ñi xaalu yoon wi parce que avant moom mënuñu woon imaginer que ni ab doomi Afrique juddoo ci continent bi dina dem ba nekk président benn ci ay club yi gën a mag ci wàllum histoire biir Europe muy Marseille loolee lépp daan ci ñëw maanaam jaar-jaaram parcours bi nga xamanteni def na ko en tant que journaliste agent de joueur président de club dem sax ba sóobu ci li nga xamanteni moy walum politique ci élection municipale France en 2014 muy ko xamanteni bu weso tay hommage bi nga xamni bëgg nañ ko ko rendre source d'inspiration la source de motivation la pour bép africain rawatina sénégalais mo xam nga ni ci biir réew mi wala bitim réew nga xam nga ni mun nga doré ci dara pour ràññeeku ci domaine bi nga xamanteni fa nga yëngu té lepp nak ci ngor ci dignité ak ci fula parce que li gënam solo ci parcours pap juuf moy kenn mësu ko tuddu ci lo xamanteni yoon daf koy ayé malgré casquette yi nga xamanteni jot nako porter durant parcours bi yépp pap juuf turam deug di Mababa juuf mi ngi juddu le 18 décembre 1951 ci benn dëkk bu ñu woyé Abéché Abéché di ñaarelu ville bi nga xamanteni mo moo dayo ci réew bi di Tchad gannaaw capitale bi di way juróom bu góor nekkoon militaire ñu affecté woon ko ci Tchad en tant que responsable du garage de l'armée française parce que jamono jooju France moo ñu colonisé woon moom Pape Diouf bi mu juddoo ba juróom benn weer ci la fameem décidé ñibbi si Sénégal enfance am yépp daanaka mu defee ko ci biir réew mi bi mu gënee nag dëgër la ko ay juróom yóbbu Richard Toll ci benn nijaayam buy wuyu ci turu Jean Paul diggante bi muy am juróom benn at tamit jàpp fukki at jàngee na également dëkk bi nga xam ne mooy Mauritanie laata muy retourné Dakar wëyal li nga xamante ni mooy njàngam ci école bii di collège Saint-Michel mais jamono jooju fekk mi ngi amoon 17 ans njàngam dafa amoon ay perturbation maanaam résultat mi demeewul woon noonu loolee sabab waajuram bu góor yóbbu ko France fi nga xam ne mooy Marseille pour que non seulement mu defee fa bagam mais tamit bu paree def lu ñuy wooye service militaire comme moom mais bi mu nee cëpp France Pape Diouf dafa jël yoonu boppam maanaam deful li juróom bu góor bëggoon mu topp ko maanaam def service militaire loolee taxoon juróom bu góor mere ko torop léegi nag Pape Diouf gannaaw ba mu jëlee yoonu boppam mu war a débrouiller jël boppam en charge muy def yenn liggéey ci mel ni coursier nekk na tamit pointeur ci port bu Marseille waaye itam doonu na liggéey journalier ci yenn entreprise yi ci même période boobu noonu maanaam jamono gi muy xoslu mu def candidat libre am li nga xam ni mooy baccalauréat après lolo, mu def concours d'aller réussir dugg ci institut d'études politiques d'Aix-en-Provence Il continue également de takkal yeneen qui yi nga mais malheureusement pour moi, il a à ci institut parce que ay moyens par la suite il a intégré l'administration administration publique de France nous PTT PTT poste téléphone fofu la xamanteeg ben waay ñu woyé Tony Salvatori nekkon du ben du champion de France ci tàggat yaram bi ñu woyé chasse sous-marine mom aussi doon liggéey ci service des postes en tant qu'inspecteur mom ak Pape Diouf doon waxtaan lu bari ci walum football. mom Tony Salvatori ci ay relation fexé ba Pape Diouf muy liggéey ci ben journal bu ñu woyé La Marseillaise mu fa doon liggéey mom Pape Diouf en tant que pigiste mu nekkon première expérience am ci walum journalisme. Pape Diouf di collaborer avec Bobé journal pour nous proposé ko li nga un ni contrat Nous embauché en tant que journaliste pour couvrir événements événement bu le club de di Olympique de Marseille mu nekkoon chef de rubrique waaye itam benn nit bu ñuul boo xamante ni d'ailleurs mon Pape Diouf m'a expliqué dans une interview naan bu daan dem couvrir un événement sportif jamono jooju gars dañ vérifier ce li nga xam carte de presse parce que français yi ñoom gëmuñu woon ni am na nit bu ñuul Pape Diouf def lu toll ci 12 ans maintenant fukki at ak ñaar ci journal boobu di la Marseillaise avant muy rejoindre benn quotidien sportif bu ñu Le Sport Kiko ko créé woon di producteur de télévision di Xavier Couture mais malheureusement quotidien sportif boobu noonu jotul woon am succès parce que actionnaires yi dañu un problème seen biir ba dañ ko mujjoon tëj faire la Pape Diouf arrêté li nga xamné moy journalisme léegi nak expérience bi nga xamné amna ko ci wàllum football ak événement yu bari nga xamné jot nako couvrir Pape Diouf que promoteur d'événements de football Il doon organiser un tournoi biir Afrique way et yenn jubilé anciens internationaux yi nous ñu remonté ci histoire un organisé jubilé ancien international sénégalais bi di Boubacar Sar Locotte di wajur bu Nabi Sarr bi nga xamanteni lu dara rejoindre na nationale du Sénégal Mom Pape Diouf mo organisé un jubilé en décembre 1986 ci stade de l'amitié ñu koy stade Léopold Sédar Senghor. jamono di dox Pape Diouf ne pourquoi pas nek agent de jour, d'autant plus que xam ne milieu bi ci noné la lancé ci secteur bobu nonou pour gérer carrière yene footballeur yi créer une société bo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu mondial promotion des société bo xam la ko tax moy accompagner yene footballeur yi mo xam ci walum transfert contrat yi nga xam ne ñu koy signé ak ay club mais tamit di gunge sportif yi bu wesso walum sport manam ci sen hygiène de vie sen comportement lépp rek pour que jour bi mën di refléter benn image bu baax bu wesso terrain de football yi. moo tax bu ngeen seetloo jour yi nga xamante ni jot na nekk seen agent moom Pape Diouf raar na ñoo xamante ni dégg nañ lañ ci ay parce que moom da doon accompagner footballeur bi ci bépp plan moo xam ci côté sportif bi mais tamit ci vie privée am yi mu njëkk nekk seen agent nag ñu ràññee ji kii di Basile Boli waaye itam camerounais bii di Joseph Antoine Bell par la suite nekk na agent wu di Didier Drogba jot na également yor yenn jour internationaux français yu ci mel ni Marcel Desailly William Gallas ba Samir Nasri bi nga xamni bi am 13 ans le Pape Diouf nek agent Pape Diouf a aussi gérer carrière joueur sénégalais yu ci melni ni Bey, Alassane bi nga xamni signal contrat professionnel. ci Boukat, bu société de di Mondial Promotion am succès bu mag parce qu'en 2004 chiffre d'affaires bi estimé à 3,5 millions d'euros. leneen aussi li mat a mooy Pape Diouf donte musul jiite benn instance sportive fii ci Sénégal da participer indirectement ci suñu développement football. même yenn joueur sénégalais yi nga xamante ni jotul woon nekk seen agent bokk na ci ñi tax ñooñu football équipe nationale bu Sénégal. parce que avant génération 2002 bi ba ñoom seen jamono ba li ci topp bu amee yenn expatriés yu nangoo ñëw football suñu réew moom Pape Diouf joué na ci rôle bu am solo moo convaincre ñu bari ñëw football si équipe nationale bu Sénégal parce que bu club européen yi dañ doon mettre pression ci joueurs africains yi pour que ñu bañ a ñëw football ci seen équipe nationale. après la FIFA tek règlement ak ay sanctions né benn club amatul droit té joueur bu fekkee ni date FIFA de femme. mais avant lolu c’était difficile pour suñu équipe nationale yi convoquer benn joueur bu football Europe. Pape Diouf bokkoon ci doomi aadama yi nga xamanteni convaincre nañ jour yu bari ñew football ci équipe nationale bu Sénégal té ñu bari xamuñu ko té malgré lolu lépp mom Pape Diouf musul bëgg wala xëccoo ndombal tank ci biir réew mi ñu ngi fàttaliku entre 2007 et 2010 bi football sénégalais nekkoon ci crise ba ñu tas fédération bi teg fi benn comité de normalisation Diagne Ndiaye jiite woon ko ñu bari doon nañ sàkku gannaaw comité boobu noonu moom Pape Diouf ñëw nekk président fédération sénégalaise bu football. mais dafa ni moom Pape Diouf Sénégal bari na ay kàngam yu mën a gérer football bi gën ko maîtriser mbir mi nu muy doxee gën ko aussi mérité poste boobu noonu parce que moom nee na newul Sénégal donc nañ ko jox doomi sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi si biir réew mi di yëngu ci wàllum football di daj lu ne te pourtant loolu noonu occasion la woon pour moom ngir yóotu yenn poste yi gën a mag yu ci mel ni présidence bu CAF wala nekk responsable biir FIFA parce que moom amoon na déjà notoriété donc nit ku modeste la woon malgré parcours bi nga xamante ni def na ko. ci début 2004 Christophe Boucher en tant que président du directoire du Olympique de Marseille Sako ci Pape Diouf ñëw jappalé ko ci liggéey bi doon manager général club bi Pape Diouf repoussé ñaar yoon offre yi maanaam bañ bu Yalla sak Christophe Boucher di ñëw ci bureau pour sàkku ci mom mu ñëw liguel club bi nga xamni moy Marseille mais ba Pape Diouf nanguwul d'ailleurs jamono même Didier Drogba bi nga xamni Pape Diouf moo agent na Pape mu ñëw Marseille moom Didier Drogba promettre Pape Diouf ne ko bo ñëwé duma quitté club bi parce que période bobu noonu club yu mag yu nek Europe dañu bëggoon recruter ki nga xam moy mooy Drogba légui nak Pape Diouf ne leen may leen ma ma dem Dakar waxtaan ak samay mbokk ak samay am di jamm ci noné le Pape Diouf ñëwé Sénégal consulté xaritam bi nga xam moy Youssoufa Ndiaye nekkoon fi président bu conseil constitutionnel mais tamit ministre des sports entre 2002 et 2005 Pape Diouf laaj ko xalaatam ci proposition bi Youssoufa Ndiaye ne ko Pape fi ci aduna bo ci nekkee da ngay nangu oser manam jël ay risques Youssoufa Ndiaye daal di ko convaincre ba Pape Diouf woo Christophe Boucher téléphone ne ko nangu naa proposition bi Pape Diouf daal di jaay entreprise bii di mondial promotion bi nga xam ne moo ko créé woon pour gérer carrière yenn joueurs yi daal di concentré wu ci club bi nga xam ne mooy Marseille ñu nommé ko manager général chargé des affaires sportives. mais période bi muy rejoindre Marseille Pape Diouf dafa tombeek benn crise am ci biir club bi non seulement résultat yi demeetul noonu waaye itam président bi dafa décider jaay jour bi nga de moy Drogba Chelsea parce que Chelsea daf leen proposé woon xaalis bu bari 35 millions d'euros Marseille accepté jaay Drogba supporter yi merci ñu Christophe Boucher en novembre 2004 mom Christophe Boucher bi nga xam mo convaincre Pape Diouf mu ñëw ci club bi. bi mu demee nag Pape Diouf remplacé ko par intérim ci jamono joo xamante ni ay clan yu bari amoon na ci club bi nga xam ne mooy Olympique de Marseille ñu waroon nag régler problème bi patron wu club bi di Louis Dreyfus organiser benn réunion pour génn ci crise boobu noonu ak yenn dirigeant wu bi ñu convoqué leen woon ci réunion bi mais ci ndaje boobu noonu Pape Diouf dafa décidé woon quitter club bi mais ñu bari dañoo bañ ki ñu ci gënoon ràññee di Louis Acariès nekkoon conseiller président club bi moom dafa taxawoon ni Pape Diouf du dem parce que benn xam ne ville bii di Marseille xam na itam réalité club bi am na réseau mais tamit contact yoo xamante ni mën na ko sax permettre mu jiite club bi. finalement Pape Diouf d' accord ni dafay des yemuñ ci patron club bi di Louis Dreyfus accepte proposition maanaam ñu def Pape Diouf président club bi di Olympique de Marseille en 2005. Pape Diouf nekk doomi nit ku ñuul bu njëkk bu jiite ab club européen boo xamante ni mi ngi évoluer en première division gannaaw bañ ko tabé ñu tecc ay club bi di Marseille commencé changer xaar kanam problème yi amoon ci biir club bi tambalé réglé wu way tam résultat wu club bi di Marseille commencé à wu. parce que mon Pape djouf bi mi jël club bi manam saison 2005 2006 Marseille mi ngi terminé 5 e ci classement championnat de France saison bi ci il muy 2006 2007 ñu jël deuxième saison 2007 2008 le club bi terminé 3e. e saison 2008 2009 Marseille terminé 2e 2e ci championnat club bi di participer régulièrement Ligue des champions waaye tam nek finaliste Coupe de France ñaar yoon yu entre 2006 ak 2007. benen liggéey bu gën am solo bi Pape Diouf def bañ ko tabé ci bop club bi di Marseille moy dafa stabiliser li nga xam moy budget club bi parce que at yi nga xamanteni mo wessu yépp club bi da doon ñak xaalis mais mom bi mu ñëwee club bi dafa stable liggéey bu am solo mu ko fa doon def ba tax mu am ñaari mandat avant que muy quitter le 17 juin 2009 mu le président olympique de Marseille bu gëna a ci poste bi depuis jamono yi Bernard Tapie en 1994. lolé tax mu gagné respect club bi nga xam moy Marseille waye tamit respect supporters yi ak football mondial. d'après parcours ak ligue bi nga xamante def nako preuve bi dafa quitté club bi at bi ci top Marseille jël championnat bu France muy résultat wu ligue bi nga xamni def depuis 2005 parce que depuis que mu suis won club bi nga xamni moy Marseille club bi dafa don monter en puissance. bu également wàllum football Pape Diouf ràññeeku na ci yeneen domaine en 2012 François Hollande dit de réew bi di France sargaloon na ko def ko chevalier de la Légion d'honneur en 2014 aussi Pape Diouf lancé wu na ci li nga xam ne mooy politique gannaaw ba parti yu bari doon sollicité ci élection municipale yi France finalement mu jiite benn liste bu ñu wooyee changer la donne mu doon ab coalition bu ëmb association waaye itam ay membres société civile moom Pape Diouf tolloon ci 68 ans maanaam juróom benn fukki at ak juróom-ñett ci hôpital bu Fann bu Dakar gannaaw bi ko jàngoro ji di coronavirus daanelee woon. ci leeral dañ ko waroon évacuer France ci bés boobu noonu précisément ci ville bi nga xam ne mooy Nice mais malheureusement situation am stable loon loolee sabab mënul woon quitter Sénégal di ko jaale njabootam ak am di jàmmam mais surtout sénégalais yi parce que Pape Diouf fierté bépp sénégalais la. ñi ngi ko denc ci cimetière bu yoof xanaa di ñaan suñu borom yërëm ko te xar ko aljana ñeneen ñi nga xamante ni itam jàngoro ji tëral na leen suñu borom may leen wér ba ñu mën a doxi seen yite donc taxaw seetlu bi tey lu la woon ñu ngi di gërëm di leen jaajafal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf